Bassirou Diomaye Faye dafa vider solo solo post bi ñu joxoon Macky Sall bi Macron joxoon Macky Sall solo post boobu. Mm-hmm. moom la yuqu boobu la Bassirou Diomaye Faye président ñëw retirer ko. Mm-hmm. Macky Sall va hériter d'une coquille vide parce que en réalité lan moo tax Macron jox Macky Sall poste boobu Macky Sall perdu le Mali il a perdu le Burkina il a perdu le Niger. il fallait trouver un bouc émissaire boo xam ne day ñëw jëm a jëm a raccorder waat recoller waat les morceaux Macky Sall c' est un courtier de la France loolu lañ ko fa tegee. wa non <laughs> pour mu ñëw jéem a. parce que France xam na ne. la France est en train de perdre énormément <laughs> le fekk amatul mais mise au niveau de ces puissances là. donc c' est euh, France xam na ne ñàkk na Burkina ñàkk na Mali ñàkk na Niger mu ngi ñàkk Sénégal. il a pris Macky Sall pour que mu recoller les morceaux mais ñoom Bassirou Diomaye Faye dañ ko jiitu foofu ñoom Bassirou Diomaye Faye seen plus politique diplomatie bi ñu am léegi mooy ñun dootuñ xaarati tubaab yi ñëw di ñu di ñu jubale ñun ñooy jël suñu destin à main mm-hmm. régler suñuy problème diisoo ci waxtaan ci mm-hmm. et c'est ça important dans ces dans ces voyages là mm-hmm. tey dem na Mali et puis avec beaucoup de courage parce que bu ko neexoon dañ nga naan mais looy wuti ci pays boo xam ne régime putschiste putschiste moo fa am. mu dem fa dem Burkina Burkina coup d'état moo fa am. mais il faut que comme tubaab bi ni ñu doon gëmloo ne bépp président bu ñëw par coup d'état rek baaxatoo. wala doo ko baax. mais y a des coups d'état yoo xam ne baax nañ ci réew. mais c'est le cas du du du Burkina. Mm-hmm. c'est le cas du Mali. tey il a pu waxtaan ak. Assimi Goïta waxtaan ak Ibrahima Traoré waxtaan ak euh, euh, le gars de la Guinée euh, Doumbouya mais tey na la wóor ne au-delà de problème boobu nga xam ne les Africains vont le régler mais le Sénégal va jouer maintenant désormais un rôle de leadership au niveau de l'espace CEDEAO mm-hmm. et c'est ça c'est ça le charme même la l'importance même de ces déplacements la léegi ni ko son ko doon waxee ñu xaarati ay tubaab ñëw di ñu jubale wala ñuy seet nan la ñuy doxalee suñu réew mais ñun ñun africains yi ñooy jël suñu destin en main mm-hmm. et quand tu regardes un peu ni mu ni mu tracé ces voyages là ban président moo ñeme woon ñu fàl la nga toog deux mois presque tegoo tànk France un président sénégalais mm-hmm. def réew yi yëpp te demoo France mm-hmm. te dem France bi mu nar a rencontrer avec Macron du loolu moo koy yóbbu de il part pour assister à un sommet. ci biir boobu moom jarul waaw ci biir sommet bi non ci biir sommet bi lañ xaj xajal benn. na yónnee benn rencontre bu ndaw bu mu war a def ak truc. na yónnee <laughs> waaye ma ne na yónnee kii du wees keroog dama nekkoon ci benn conférence. <laughs> sëñ bi na yónnee la la dame disait au niveau de la conférence que ñun en fait euh, tubaab bi dañu yàpp. ndax suñu su amee coup d'état bi nga xam ne ça les arrange pas. ils disent mais ils France moo ñu coup d'état. France moo ñu coup d'état su ñu nekkee France qui nous a fait les coups d'état combien combien de régimes ont été mis en place ça ne les arrangeait pas. wala si même politique bi si fi direction bi naroon jël arrangé wu France France tekk leen coup d'état. mais na nga mën a def coup d'état. ñëw nekk gaañu Macron. te alors que moom. c'est un produit d'un coup d'état. léegi loolu nga nangul Gabon nga bëgg ko bañal. mais xamaat Ibn moo waaw Macron dafa dem ba sur place. installé adoubé ko il a adoubé. waaw adoubé installé adoubé ne ko waaw affaire bi yow la. bañ nañ ko ba dañuy euh, naan retour. Euh, Samba da nga pare. waaw da nga pare. pare naa wuy ma bu mu dem. <laughs> pour mu leer boog xamul tax euh, sànq bi ñu bi bi waxtaan bi ma fekkee dañ doon wax waxi démystification ak démythification. Mm-hmm. il faut. ak décomplexe on n'est pas obligé d'aller en France après quelqu'un me dira non le partenariat économique ak suñu link ak ñoom et cetera dafa am loo xam ni baa ko bëggee len nay am nag tu es libre ou tu ne l'es su fekkee am na loo xam ne mu ngi ci suuf lu nu maîtriser wul boobaa ñun dañu ne nemm rek daal di subir su fekkee nag dafa am fu nu jëm te dafa am benn kàddu bu Ousmane ko waxoon il est temps que la France nous foute xaw ma ndax noonu la ko waxee woon ou pas en tout cas dans un sens et je sais qu'il a dit ça su ko waxul na ma internaute di wax rek exactement nan la ko waxee woon man mm-hmm. mais ce terme là je je me rappelle l'avoir entendu si loolu lanu war a dox àdduna bi dafa changé bu njëkk bu njëkk ni Ousmane waxee devant Mélenchon Thomas Sankara wax na ko devant Mitterrand ñu teg ci weer weer lañ ci teg ñu éliminer ñu éliminé ko 15 octobre 1987. lu ko jiitu. Hmm. Mitterrand waa ji taxaw Sankara ne ko produit yi nga xam ne jógewul si ñun ñun mënuñu transformer nangam nangam la mu dénoncé lépp ba mu pare ca coulisse Mitterrand ne ko monsieur le président vous êtes jeune. après ñu faat ko. Hmm. Ousmane Sonko a tenu les mêmes promos bon après propos yu ñu jaxase fii après dans par par ñenn ñi mais wax rek ne <clears throat> fi mu toll nii. le président peut aller comme moom lii man waaw xanaa da ngeen da ngeen déedéet ma gis ci caméra bi non waa Régis ñoo ma xool gis ne maa ngi nelaw waaw non da bi dafa ndànk waa Régis ñoom waa Régis ñoo ma xool gis ne maa ngi nelaw ma wax ko mu leer ça justifie la taas de café baa bëggee nag ñu defaral la beneen indil beneen xulil apartheid alimentaire. waaw kay gis nga indil nañ la. am na fi xalaat xalaat nañ la. am na fi am na sàmm mu ngi nelaw Saliou moo nelawul <laughs> benn affaire laa wax. Mm-hmm. est-ce que xama xama lan moo garaaw ci position Sénégal problème bi nekkatul sénégalais yi ñooy toog naan woy euh, yi le président na def lii bu mu def li xam leen lan moo garaaw léegi africains yi ñoo toog. naan non non non bu mu dem France. si il faut ñu bàyyi xel. après ñun nous sommes le Sénégal nous sommes souverains. ñun xam nañ suñu ay intérêt mais sëñ bi sommet boobu sax sommet boobu sax mooy mooy mooy ah non il peut venir ñu dugal ñàmbaas ko ca faw mu ñëw sëñ bi. li nay li may wax ni na ñu dama lay wax mu dem Ahmed Sékou Touré dafa mujj dem États-Unis di faju fa la ñàkkee bakkanam xamul lan la doon faj microbe microbe visite taxaw ci micro wax micro ba micro boobu ñuy wax ne moo faat Papa Wemba ca concert ba micro ba te micro ba tu débarques sëñ bi maa la wax ak aw tag lu nu fi xeeb tubaab loo xeeb ah, xeebu ko ah, tubaab xulil ah je t'ai fait un cadeau euh, des euh, ah, dernier c'est la dernière marque ah ndeysaan paasan doon naata xaw na noonu di 44 dof cu sam mu ko may combien de chefs d'État am na ministre boo xam ni xulil tasse de café bañ ko jox ca aéroport ba moo ko faat. président mhm. président kii rek président bi daan léegi ci avion yàggul. nu mu tuddati sax. président iranien iranien hélicoptère lay mais mais mais mais le commandant Massoud. benn caméraman moo ñëw di ko filmer ci la def affaire bi. exactement rey ko Massoud exactement <laughs> am na am na. am na am na waaw patron de presse est disponible c'est le patron de presse qui qui qui sert les cafés waaw moo kooku manager la de nga manager day doon nandite mhm. fii suñu fii fii la gars yi comprendre mais manager day doon nandite aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag ñun nag danoo toog di wax ñu xalaata bopp mhm. la mu am ci information bu jógee ne day dem France moo ko xam waaye man sénégalais maay wax ne bu mu dem xam nga lu tax mhm. Ah, waaw mën naa yónni lan la xanaa du compte rendu ndaje baa ngi nii comme muy yónni sax dama la ne ka muy yónni sax bu dee ab ministre la bu ko neexee mu taal téléphone am te ndaje ba xullit di ko live di ko liveal moom direct whatsapp <laughs> président bi di dégg lu ñuy wax ak lu ñu waxul je veux juste dire il faut que ñun suñu ay autorité wan tubaab bi ne ko j'ai pas le temps dama nekk ci yoo xam ne jamono bi mu ma il faut ñu jafe il faut waay ngay seer il faut ñu ñu ñu ne ñoom ñu toog ne mais attends bordel mais il vient pas il faut dama ne la man bu doon sama xalaat bu ma laajoon ne ma waa lam nga bëgg ma ne leen bu dem di am. émission bi émission baa ngay daw de. <laughs> ah ndax bàcc sa na Macron ñëw. léegi Macron buy ñëw xooli ca visite ba jarul génne ay nit ak ay kii naan dañ koy teeru. na ñëw ak sobriété mm. dalal ko mu wax nu tontu ka te Afrique yëpp loolu la ñuy xaar. Afrique yëpp nag bu la neexee nga ne woon sama yoon newu ci mais dafa am lenn loo xam ni mooy principe précepte boo xam ni moo waral cette révolution bi am Sénégal jàpp naa ni sama gis-gis ba gàtt ma waxaat la kilifa ñoo xam lu tax ñuy def ak lu ñu dul def mais bu demee France dina nasaxal dina nasaxal lu bare. Mhm. sëñ bi man sama raw rawxaan moo wóoluwul tubaab yi. waaw buñ ko yóbbu kon le mieux mooy mu bañ a dem rek mu yeble quoi. na yónnee. Mhm. qu'est-ce mu yónnee. Mhm. Saliou na yónnee. l'un n'empêche pas l'autre. sa de n'est pas obligatoire ma ne la bis bu Macron bis bu Bassirou Diomaye Diakhar fay di dem France. bu jëlee décision ne damay dem France wala damay def tournée européenne su ma jógee Suède bu ma jógee Scandinavie. su ma jógee England su ma jógee Irlande su ma jógee Angleterre boog tous ces pays réunis su ma fa jógee su ma dinaa jaar France. il faut ñoom ñu sentir ne waa ji jógul pour ñun. la rupture c'est ça il faut soit ça passe ou ça casse mais di toog di gérer parce que gérer bi mooy danger bi la CEDEAO on a écouté le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Bamako je ne suis le médiateur de personne il n'est le médiateur de personne ni CEDEAO ni AES c'est le président de la République du Sénégal qui rend visite à ses voisins promptement parce que voilà ñii ñëwoon nañ ci sama cérémonie de prestation de de de kii de serment ñii ñëwoon nañ euh, seq nañu ko ma dem seeti leen damay door a agsi et c'est normal li fi nekk moo di ne africain yu bëri dañ doon xaar wala dañoo bëgg Sénégal dem rejoindre AES ce n'est pas possible pour le moment sincèrement le président Faye a parlé de CEDEAO dafa am ay manquement ak yenn détails yoo xam ne moo ñu indi situation bi il va falloir corriger c'est dans ce sens que j'ai compris maintenant sauf que correction ba mënul am tant que il y a quelqu'un non tant qu'il y l'injonction française ci biir CEDEAO sëñ bi dix milliards dans dara du baax tax bu boobaa Sénégal lan lay def day compter di subir injonction française ci biir CEDEAO question la la rupture elle est pleine soit on la fait ou on la fait pas kenn waxul ne waaye Sénégal l dem CEDEAO nga dem kii non mais qu'est-ce qu'il faut faire le Mali mooy suñu plus proche et à la limite notre premier partenaire économique de géographie en géographie bu ñu jege qu'est-ce qu'il faut faire question la ah léegi kon la relation bilatérale day imposé wu sama relation ak Mali ma géré ko sama relation ak Burkina ma géré ko mhm. sama relation ak Niger ma géré ko ni France amee possibilité jóg link ak Allemagne directement la première puissance économique européenne gérer business am am ko ak yeneen dëkk yi yow Sénégal nga doxalee loolu ba pare di ko wane di ko wax buñ la nee France nga ne le président n'a pas encore le temps d'aller en France mm. impossible te président su waree tukki maa ko wax fii sama xalaat bëgg dana duggaat biir CEDEAO. Euh, non non c'est fini c'est fini c'est fini AES c'est fini xamul ndax c'est fini AES aujourd'hui quand tu as